si bile mbedd bu ndakaaru fépp foo sànni say gët ay tableau d'art objet de décoration ngay gis jamono ji nag jaaykat yi li ñuy waajal rekk mooy weeru décembre bi mi nga xamante ne mbir mi day gën a dox waaw décembre moom xam naa touristes moom léegi ñuy commencé ñëw léegi ñu commencé ñëw waaw ñuy def cadeau tamit léegi ñu ñëw waaw ñu ngi leen xaar daal moom cadeau moom surtout cadeau africain yi moo gën a original quoi boo xool. yile article nag ñuy bàyyeekoo foofee ca bitim réew ñoo ko gën a na bëgg waaye nag jamono ji sénégalais yi sax daal di nañ cee dugg. waaw aar yi moom euh, la majorité gars yi dañu wax pour le tourisme nee non aar daal ñëpp ñoo ko moom. mais léegi moom vraiment même sénégalais yi sax dañ ko bëgg. léegi sénégalais ñu ngi ñu ngi ñu ngi gën a ñëw de diaspora bi bëri na ñi nga xam ne léegi bu ñuy décorer seen. seen seen appartement yi wala affaire yooyu ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw di jot. Samba moom day jaay ay portrait kilifa diine Sénégal yi. mu nekk li nga xamante ne dox na bu baax. ah voilà portrait Serigne Yankor day dox surtout Serigne Babacar. après for Serigne Touba day dox noonu la demee quoi ak Serigne Baye Niass ñoom yëpp seen photo day fa dox. prière de Magal di dem noonu la gars yi dañ ñëw di jënd photo ay Serigne Touba maam maam Fallou. yëpp day dox ak suñu saaliw yi lay jaaykat nag ñàkkul ay jafe-jafe yu ñuy jànkonteel si seen liggéey yi comme par exemple fii nii dafa amoon ay vase dañu amoon ay tagara yi ñuy defoon nii mais gars yi ñëw ramasser lépp mais en tant que art sénégalais ku xam art waroo ramasser art art sa image Sénégal lañ jaay dans le monde entier ah des fois gars yi bu ñu buggee ramasser ay taabal ou bien ay oto yu panne lii di oto bu panne lii di ay taabal te ñun terewuñu kenn nit yàlla gis nga bi nu mooy yaatu. bu weesoo weeru décembre bi beneen période bi nga xamante ni dañuy gis seen bopp bu baax vacances yi la ndax si la touristes yi di ñëw waaye itam sénégalais yu nekk foofee ca bitim réew.